baax xana di len jaajëfal ci ñew bi ngeen fi ñew tay pour di wax ni xeyna bisu tay bi di le 4 janvier 2023 dafa am lu muy tombeel muy journée internationale du braille waaye eh, tomber bi itam dafa tomber ak eh, datu anniversaire u Braille ndax ñepp xam nañ ni eh, écriture braille lui Braille mom moko inventé moko sos en 1930 en 1839 waaye Louis mon moom moom ci boppam mu ngi le 4 janvier 1809 à Couvray Ben dëkk bu ndaw bu nekk à 40 km de Paris moom foofu la juddoo le 4 janvier 1809 kon euh, bu ñu bëggee wax tuuti ci maanaam histoire Braille nan la Braille ñëwee fii dañuy njëkk leeral que du lang du kàllaama waaye Braille mbindin la mbindin manam nu ñuy bindee ndax dañu xool xam itam. xam nga nit moom bu fekkee ni euh, du gis silmaxa la kooku mënul gis lu ñu bind waaye bu fekkee ni dafa bëgg liir am na nu mu war a mën def pour liir loolu la Louis Braille créé muy bindin mi bindin mi nag ab kayit bu xaw a tal la jël am yuñ ci capp capp capp yooyu moom la silmaxa bi di teg loxoom di ka buy làmb rek moom dafay liir pour leeral ni Braille du kàllaama du làkk bu ñuy làkk mais bindin la donc euh, ñëwam ci Sénégal nag dafa am benn ndaje bu amoon en 1972 yàgg na tuuti daje boobu euh, ñi ci daje woon moo doon euh, congrès quinquennalu conseil international des éducateurs des personnes handicapées visuelles maanaam ñiy tànkat ñi tàggat euh, silmaxa yi ñoo doon def seen benn congrès congrès boobu nag ci la waa UNAS Union nationale des aveugles du Sénégal demoon bokk ca congrès boobu bañ ca bokkee itam la ca jóge moom mooy après euh, am na benn convention ba nga xam ne bii euh, Coumba Ndoffène Diouf bi nekkoon ministre des affaires sociales signé na ko ak ku ñuy wax Dian moor ba ñu signé seen convention boobu convention boobu la ko gën a dëggal gën ko jëmal moom moo doon ginnaaw gi dañuy yónni benn formatrice benn as ndaw mu ñëw Sénégal bi mu ñëwee fii dañ ko jox fanweeri jàngalekat yu am baccalauréat fanweri jangale kat yoyu ñom ñu former len biñ len formé fanweri jangale kat yoyu ñu former len pour ñu tas mbir mi ci juróom benn région région yoyu mënon nañ ci japp Cap-Vert mënon nañ ci japp Diourbel mënon nañ ci japp région du fleuve mënon nañ ci japp euh, euh Thiès et cetera mënoon nañ ci japp aussi région du Sine Saloum ndax euh, jamono yoyu yooyu ñoo doon région yi bañu formé ñoñu nak ba paré ginnaaw gi en 1982 la ñu ubbi INAS mooy fii ñu nekk tey ñu tudde ko INEFJA turu INAS la amoon ah ñu doon fi dajale itam di jàngal nit ñi di ko jaarale ci Braille loolu bu ñu mënee dikk ci taarix taarix bi loolu lañ ci mën kii léegi nag euh, xëy na du jafe-jafe mais dafa nekk lu nga xam ni spécificité lañ ko mën tuddee ndax euh, li xawoo kii tuuti tuuti mooy matériel bi lu ci ëpp bitim réew rek lañ koy jaayee. bitim réew rek la am amul fii euh, loolu xëy na moom mooy euh, li ci xaw a nekk tuuti ndax bu doon kaye wala livre bu ñuy jaayee fii marché da ngay dugg léegi oto dem jëndi ko dellu si waaye bu dee matériel bi ñuy liggéey baray lu ci ëpp da nga koy commandé boo ko commandé xaar ab diir mu door a egsi waaye loolu itam baax nañu xamal nit ñi ni gouvernement bi muy état wu sénégalais ma ngi ciy xar tànk tubayam di ci def lu mu mën ma ngi koy jël en charge bu baax a baax ba taxna itam wax deug yalla kenn du ni jafé jafé la buñu mënul surmonter mais gouvernement baa ngi ci taxaw taxway bu mat sëkk té lolu itam euh, toujours buñu ñu ci yenn yi fay bax ñuy gëreum itam euh, le président de la république son excellence le président Macky Sall bi nga xamante ni que mom ci bopam mo jël décision ci conseil des ministres da fay réhabiliter moderniser inevia ci réhabilitation modernisation bobu ah mom mo waral bâtiment bu mag bé ñuy tabax tay pare na tabax nañ ko ba pare mais am na beneen phase buy ñëw léegi défi yi nag tey euh, li nga xam moom la ñu war a gën a ja song moom mooy euh, informatisation bi xam nga àdduna euh, bi ñu nekk tey dafa nekk lu ñuy wax àdduna numérique maanaam lépp lu ñuy def te jaarale ko ci xarala yu bees yi rek des na muy ère du numérique loolu nag INEFJA itam am na ci taxawaay ndax euh, jamono yi passé rek def nañu benn lël benn formation bu nga xamante ni ko formation bi luñ ci doon jàngale li wax informatique adaptée maanaam informatique adaptée aux personnes malvoyantes pour ñoom ñu mën a jëfandikoo informatique bu baax a baax di ci liggéey loolu bokk na ci li nga xamante ni itam wax dëgg yàlla ay défi la ci défi yi itam toujours ñoo ngi ci ñoo ngi liggéey ci benn projet ak OMP organisation mondiale pour la propriété intellectuelle te ci liggéey boobu ak OMP yi am na lu ñuy wax g maanaam juróom-ñetti agent wu INEFJA yuy liggéey ak OMP yi ci boobu mbir di jéem a xool nan la ñuy transcrire ouvrage yi en braille pour xale yi gën ci mën am accès mais itam képp nga xam ne kii yow nekk nga silmaxa nga mën a lire wala nga mën a am loolu loolu moo waral projet bibliothèque sonore bi nga xam ne ñoo ko bëgg monter bugg ko def ak yu demee noonu donc euh, ci loolu laay jeexale ak traité de Marrakech bi nga xamante ni que nit ñaa ngi ciy wax mais traité boobu am nañu njort bu rafet si ni bala muy yàgg loolu signature bi dana génn ndax ci weeru juin bi passé ñun toog nañu conseil spécial chef de l'état wax ñu ni kayit bi ma ngi ci taabalu président de la république te signature bi daanaka euh, ndegam amul ba pare sax daanaka daal nekkatul luy yàgg loolu daal moom mooy li nga xamante ni ko mënul naa ko wax ci défi yi ak euh, ci yenn projet yi nekk yi di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci teewlu bi.